bagage su mag la bokk defe naa ni am nañu ko xam waaw ah. euh, comme nii nga ko gisee rek noonu lay demee bëggulee doon bu ñu liggéey ak euh, alquran su ko defee xaatim yi moo yi ko composé nii moo ko composé li nga gis nii kanam gi la même ginnaaw gi it Euh, alquran moo ci nekk muy mbubu mu nga xam euh, moom mën naa ni su ko nit ki xasee ba sol euh, lu ko fi tam may rek <laughs> mën na ko def ndax incha allahu rabbi ji kàttanu borom bi subhanahu wa lépp lu nga xamante ni def na ko wala problème bu mu mën a am lu mu rëy rëy ci kàttanu yàlla moom dana ci mucc waaw ak fu mu mën a dugg ci àdduna lu mu fa bari bari ay noon ak palaas ba lu mu doy waar doy waar su fekkee ni jiital na mbubbam yi teg mbubbam ci kawam incha allahu xelam mën na dal ci kàttanu yàlla waaw moom bu fekkoon ni Euh, dóor ay balit mën na xuus ci biir jàll taxani ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala su fekkee li yàlla may woon nangu ko incha allahu dina mucc waaw ndax lii moom wóolu nañu ko waaw ndax xam nañu li mu doon xam nañu it li ko composé waaw te it fa tabaarakallahu dafa nekk

dafa am ay noonam yu fa nekk te muy ragal ñu euh, yàqal ko walla ñu gaañ ko ci dara incha allah na fexe ba mbubb mi mu sol ko jiital ko jël mbubbam teg ci kawam hmm, defe naa ni ñi nga xam ni dañuy faral di am jafe-jafe ci wàllu hmm, yoon itam xam naa ni xam nañu mbubb mi waaw <laughs> xam nañu mi su ko defee ñi nga xam ni euh, miin lañu ko am na it ñu nga xam ne dañ koy lem ba mu jekk ñu def ko wutal ko lu mel ni euh, gisee boo xam ne dañ ko ciy sol ba defee suñ solee seen yére ba pare def ko lu mel ni genre ceinture takk ko jël seen mbubb teg ci kaw kii moom defe naa ni ponkal yi daal miin nañu ko <laughs> miin nañu ko fa tabaarakallah kii mbubb la waaw ñi nga ko gisee nii noonu lañ koy solee rek incha allahu rabbi dangay sol rek teg ci sa mbubb ci kaw ci kàttanu yàlla daal incha allah bu ko nit ki solee moom wóolu hmm, lu xelam mën na dal ah, mën na dal lu problème rëy rëy allah buy dem na sol mbubbam rek ci kàttanu yàlla yàlla dina ko musal incha allah moom nga gis noonu mooy mbubb mi nga may laaj ni fa tabaarakallah <laughs> eh, waa aywa jërëjëf waaw da nga nekk ci palaasu liggéeyukaay eh? wala dafa am société boo nekk moo xam da nga fa jiite wala da nga fa di fa liggéey eh, te ki nga xam ni mooy boroom jubuwu la lool <laughs> eh, jiitalal mbubb mi su fekkee ni dem ba su ko defee nga jël sa ci kawam incha allahu eh, su sooy sol mbubu mi muy jàkkaarloog yow ci kàttanu yàlla dina am eh, benn yëg-yëg bu mu am ci yow te itam dina la sopp lool loolu moom ndax kenn mënu laa bañ fekk mbub maa ngi tege ci sa yaram incha allah te itam kenn mënul ci yow leen dara loo bari bari ay noon ci palaas solo doon bëgg mi nga dem soo demee na sa xel dal ci kàttanu yàlla mënuñu la dara incha allah